aw saakitan wala muy aji noppi mutlaxan ak nu mën di amee aw xaari an wala muy aji jàng fistunaa iyati ci jullit ñaari rakk ga fa attammat te mu mottali moom kuréel bu njëkk boobee afdaadan mbir bu ñuy ay benn benn wan sarafat te ñu wëlbatiku dem ci xeex ba fa tati tey dikk attaaniyatu kuréelu ñaareel ba fa yu salli te muy julli moom ilimaan biha ak moom maa la nga xam ne baqiya des na defin wi jafewut su fekkee ne julli ga day julli suba mbaa nga xam ne day julli ñeenti rakk dañ toll ci di wàññi ilimaan day xaaj mbooloo ma ñaari xaaj xaaj ba njëkk ñëw nag ñu daal di noddu liqaam mu jiite leen benn rakka jóg nag taxaw bàyyi leen ñoom ñu àggale seen rakk ba ca des daal dellu ci xeex ba kuréel ba fa nekkoon di xeex ñëw mu jiite leen rakk ba ko dese su fekkee ne nag day timis wala nga xam ne wàññiwuñu jullit ñeenti rakk yi ndax nekkuñ ci tukki dañuy matal kon kuréel ba mu njëkk woo kuréel ba njëkk ñëw da leen di jiite ñaari rakka ba taaya taayu jëkk ja jóg nag taxaw bàyyi leen nag ñoom ñu àggale la des bu dee timis benn des ñu àggale ko bu dee geneen ñaaree des ñu àggale ko li am teqale foofu nag mooy bu julli nga doonee jullit ñaari rakk te mooy suba ak buñ dee wàññi julli yi doonoon ñeent bu jiitee kuréel bu njëkk bi rakkaam boobee jëkk ba jóg taxaw moom mooy taam bu ko neexee taxawaay boobee muy taxaw di xaar kuréelu ñaareel ba ñëw bu ko neexee di ñaan bu ko neexee ni pat bañ a wax dara bu ko neexee itam mën naa jàng ndax ndegam taxawaay ba mu taxaw ci rakkab ñaareel la te rakkab ñaareel moom fatiha ji rek la ñuy bañ mu baamu ko waaye mën naa jàng ci alxuraan di wéy rek moom kon nag noonee mu taxawee ci rakkab ñaareel ba bu ko neexee di ñaan bu ko neexee ni pat bu ko neexee di jàng alxuraan te bañ a jàng nag fatiha day bàyyi fatiha ba kuréelu ñaareel ba ñëw mu tàmbalee ca fatiha ja bu doon nag julli goo xam ne du julli ñaari rakka nga xam ne dafa am ñaar taaya jóg taxaw ci rakkam ñetteel ba ñetteel ba mën naa nekk bu timis mën naa nekk ñetteelu jullit ñeenti rakk geneen ndax dañuy matal yooyu jamono bu taxawee noonee benn mu ne pat mbaa muy ñaan rek yem ca ndax ndegam rakkam ñetteel la taxaw deesu ca mën a jàng dara lu may faatiha te faatiha bëgguñu ku ko baamu kon day taxaw di ñaan rek mbaa mu ne pat ba kuréelu ñaareel ba ñëw nag mu door a ànd ak ñoom àggale su ko defee nag moom musalmal bàyyi leen nag ñoom kuréelu ñaareel ba ñu fay lañu leen rawe woon moom daal mel na ne boo ko déggee jafewut xaaj na mbooloo mi muy waa xare bi ñaari xaaj woona benn xaaj ba jiite leen xaaju julli ga xanaa bu dee timis rek lañ mënta xaaj mu jiite leen ñaari rakka ñu yemale ko julli ñeenti rakka yi ne bu dee julli ñaari rakka moom ñoo ci yemoo xaaj bu njëkk ba da leen di jiite rakka bu njëkk ba xaaj ñaareel ba mu jiite leen rakkab ñaareelam nga xam ne kuréel ba mu njëkk woo bu leen jiitee xaaju julleem da leen di bàyyi ñoom ñu àggale da des ci julli ga dem nag xeexi kuréel ñaareel ba dikk mu jiite leen la ko dese woon ci julli ñoom nag ñu fay lañu leen rawe woon mooy lañ fekki wutoon muy lam jiite xaaj bu njëkk ba mooy leemu ne fa ida sallama dem ilimaan salmal na xadaw ñu fay maa la nga xamee ne faatahum rawoon na leen ñu bañ a fàtte nag ne muy kuréel bu njëkk ba muy bu ñaareel ba ku ca ilimaan jiite lam lay jiite la ca des dañuy kenn kennoo kenn du ca ànd ak sa moroom kenn ku ne day beru àggale la ngay àggale wa im saxaandeem juum na maxal ula ànd ak kuréel bu njëkk ba sajadat kon mu sujjóot moom kuréel bu njëkk ba bax da ikmaaliha ci gannaaw matalam ga alxabliya sujjóotub xabla xabla salaam ci njëkk salmal bu fekkee kuréel bu njëkk bi ilimaan njëkk a jiite ilimaan daa juum juumte loo xam ne aajowoo na sujjóot man naam muy sujjóotu xabla mbaay sujjóotu bax da kon xam nga kuréel bu njëkk bi moom du fekkee natu julli ilimaan ndax bu ko ilimaan jiitee la mu ko war a jiite muy kuréel bu njëkk bi da leen di bàyyi kenn ku ne mot li sa julli topp dem xeexi kon nag nañ seet rek fu sujjóot bu war a nekk ñu def ko fa bu dee xabla salaam koo ci xam ne taayee nga bala ngaa sëlmal defal xabla salaam ba bu dee bu dee baxandi salaam koo ci xam ne taayee nga bu sëlmal nga daal di koy def muy baxandi salaam kon daal ku ci ne bala ngaa dem moom defal xabla bu dee xabla ak baxda bu dee baxda wa sajadat te sujjóot ak saaniyatu kuréelu ñaareel ba alxabliya sujjóotub xabla maa xoo ànd ak moom wal baxdiya mu sujjóot sujjóotu baxandi salaam nag baxdal xadaa yi ci gannaaw fay ga kuréelu ñaareel bi moom ilimaan moo leen njëkk sëlmal ndax bu sëlmalee ñoom dañuy fay lañ fekkee wutoon mooy lam jiite woon kuréel bu njëkk ba kuréelu ñaareel boobu nag bu ilimaan dee sujjóot xabla salaam dañuy ànd ak moom ndax ndegam njëkk sëlmal la rek dañuy ànd ak moom duñ ko xaare ba fay lañ war a fay waaye nag baxda salaam moom duñ ko ànd ak ilimaan bu ilimaan sëlmalee bay def baxda ñoom dañuy jóg fay lañ fekkee wutoon ci julli gi buñ ko defee ba noppi nag ba sëlmal door a def baxda wa in lam yumkin dem jàppandi wut tarkoo bàyyi xeex ba li baax di ñeel ñenn sallaw kon ñu julli aaxiral muxtaar yi ci mujj muxtaar ma imaan ci ak junju alf zaatan mbir mu ñu ay benn benn in lam yumkin dem jàppandi wut rukkoo hum rukkoo wa sujoodun ak sujood daa waxoon ci gannaaw bu fekkee ne xeex bi taxu ko mettee noona ba mën nañoo xaaj mbooloo mi ñaari xaaj mu jiite ñi ab xaaj ci julli gi bàyyi leen ñu dem xeex yi ñeneen ñëw mu jiit leen la ko desee ni ñu ko waxee woon léegi daal bu wax nag bu fekkee ne xeex bi daal méttee métti ba nga xam ne amuñ jotug xaaj mbooloo mi ñaari xaaj ci nee ñu ko waxee woon su boobaa kon nee na ku nekk fexeel ba julli rek na nga mën a jullee du aajoo ñu wut ilimaan ba dara kenn ku ne na julli julli boppam te na mën a jullee rek mu jullee ko koo xam ne mën laa rukkoo mën laa sujjóot da ngay junj rek ku mën a rukkoo mën a sujjóot nag ba tey baax na. li mu ne aaxiral muxtaar yi maanaam nañu ne gëniku ba ci mujj muxtaar ma ñu door a jullee noonee day fekk rek ñu yaakaar ne xeex bi dana dal mbaa yéefar yi daw bala ñu àgg ca mujjug muxtaar ma loolaay tax ñu digal leen ñu bañ a gaaw a jullee noonu te bàyyi ba ca mujjug muxtaar ma te bu fekkee amuñ yaakaar ci ne xeex bi dana xaw a dal dara bañ mën a jullee neen njëkkoon a waxe kon say boo rek ñu daal di jullee fa saasay saasa kenn ku ne noo ma ne jullee ko ba tey bu ñu tàmbali woon a julli am ku jiite far yëfar yi song leen noonee say boo rek kon kenn ku ne noo mën a àggalee sëg julli nga àggalee ko rek namu la jàppandee waxal la te dagan li daroorati ngir lor mashyun dox wa darbun ak dóor wa taanun ak dëbb dëbb ñaw ka wa kalaamun ak wax maanaam julli gu mel nii nag nga xam ne ragal nañ ne buñ ko bëggee awale ci yoon nam daan mel yëfar yi gaañ leen bañ na kenn ko na julli nam ma ne dana bari ñu ci nangu te nanguñ ko woon ci geneen julli mooy ku ci nekk mën ngay dox mbaa ngay daw mbaa ngay lagg te yaa ngi ci julli gi mën ngay dóor mbaa ngay jam di dëbb te yaa ngi ci julli gi mën ngaa wax mën ngaa wax mooy sa moroom bi nga bokkal xare bi ci julli ñi mën nga ko ne moytul kee mi ngi sa kaw wala nga ne ko kee dee mën nga koo jekku jam ko léegi xam daal mën ngaa wax ak moom la nga bëgg a wax ak moom waxadamu tawajjuhin ak ñàkk jublu xibla julli gu mel nii duñ ca sartu jublu xibla fu ñu jublu rek baax na wa masku mu lattaxin ak jàpp fu ñu taqal deret xam nga deret sobe la bu dee julli gu mel nii moom mu jàpp ci ab cëram fu taq deret wala ngànnaay loo xam dafa taq deret ci wàññi dara wa in aminoon dem wóolu nañu nag bi xaa ci biir julli ga uti mat kon mottaleef ko salaata am nin muy julli wóolu buñ dee julli ba yàgg nag far ñu gis ni yéefaree far nañ daw fekk dañ ko doon def julli gu demee nii waaye mën a julli rek jullee ko ñu waxoon ne sax ku mënta ko mën laa sujjóot da ngay junj rek buñ dee julli ba yàgg nag ñu yëg ne kat yéefaree far nañ daw kon nañ àggale julli ga te nañ baaxoo jullee andi rukkooy sujjóot yi yépp rek mu mat faslun fii salaatil iidayni salaatul iidayni jullik yaari xiid yi sunnatun sunna la mu akkadatun bu diguñ feddale fii xaqi ma'muril jumuhati ci àqi ku ñu digal julli jumaa koo xam ne julli jumaa war na ko rek julli korite tabaski sunna su dëgër la ci moom ku julli jumaa warut nag dañuy sopp ci moom rek korite tabaski waaye du àgg ci sunna mel ne gone wala jigéen wala jaam wala kuy tukki tukki boo xam ne ñeenti fan ñëpp julli jumaa waru leen woon kon nag julli korite tabaski du àgg ci sunna ci ñoom day nekk rek lu ñu sopp
ku nekk di aj nag moom duñu sunnaal ci moom jullik tabaski ga ndax yorante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam defu ko woon foofee ci meneen itam nga xam ne dañ fay xëy si ci bisub fukkeel bi di fa sànni jamray xàqaba yi ña fa dëkk te nekkuñu ci aj ga itam duñu taamu ñi def mbooloo di julli julli tabaski ga ndax dañuy bañ yóbbaale ca ña nekk ca aj ga dañu sopp rek ñoom kenn ku ne ci ñoom mu beru julli julli tabaski boppam
wax ya moom nag jullik xiit rakxataani rakxataani ñaari rakk la min xilli naafilati tàmbalee ci waxtu daganuk naafila li zawali ba tisbaar julli korite mbaa tabaski waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu naafila daganee mooy bu jant bi fenkee ba yëkkatigul toll ne ñetti meetar dana dem nag ba tisbaar bu tisbaar xasee jot julliñ ko nag moom jeex na kenn du ko julleeti ndax moom bokkul ci julli yi nga xam ne buñ rawee dañ leen di fay daka moom du farata booliwu ci ñu fay bu waxtoom xasee jàll yu kabbiru dana kàbbar sittan juróom benn baax doon ihraam yi ci gannaaw armal ba suma xam san topp juróom mu xayrul xiyaami lu bokkut ak kàbbaru jóg ba te wax ni ñu koy jullee mu ne ràkk bu jëkk bi boo ne allahu akbar muy armal da nga ci tegaat juróom benn kabar muy juróom ñaar nga door jàng nag faatiha ak saar ci ràkkam ñaareel ba nag moom boo jóg bàyyi ko ci sujjóot ba da nga wax allahu akbar boobee nga wax nag bi ngay jóg da nga ci dolliwaat juróom mu juróom benn kon ràkkam ñaareel juróom benn allahu akbar lay am waaye kàbbaru jógaale ba ca la bokk ràkk bu jëkk nag moom mën nga ne juróom-ñaari kàbbar lay doon waaye da nga ci wàññiwaale bu armal ba mu waalan mbir mu ñu toftale maanaam boo waxee allahu akbar bee da nga ciy sësale ba ci sës doo leen teqale teqale bu yàgg illaa bi takbiiril mu'tammi ndara ci kàbbarub aji roy ja maanaam ilimaan su waxee benn allahu akbar dana def teg teeylu ba ñu ànd ak moom ci julli ga wax seen allahu akbar mu door a waxaat beneen li teqale kabari daal mooy ilimaan saa yu waxee benn dana ne patt tuuti bàyyi ba ñi muy jiite ku ne wax allahu akbar mu door a waxaat beneen wa taxarraahu nattale na ko mu tammun ajoroy lam yasma kook déggut ku bokk ci julli ga mën laa dégg kabar ba nag dangaa sori mbaa dangaa tëx kon da nga koy tolloole soo jàppee ne ilimaan wax na allahu akbar rek nga daal di koy wax tollool rek noonu fa in nasiyahu dem fàtte na kàbbar ga kabbara mu kàbbar maalam yarkan li feeg sëggut rukkoo wa ahaada te mu baamu alxiraata njàng ma wa sajada te mu sujoot baxdu ci gannaaw sëlmal ba maanaam bu fekkee ne danga fàtte ci kàbbar yi benn mbaa nga fàtte yépp di jàng ba yàgg nag nga fàttaliku ko kon ndegam sëgg góoru koo rek yoogut da nga daal def kàbbar ba nga fàtte mbaa bu dee ab lim ñu bëgg nag nga baamuwaat dara ci njàng ma door a jàll nag rukkoo su boobaa nag xam nga yokk nga ndax baamu nga baamu jàng ma ak yokk la kon nag nga sujjóot ba xande salaam fa in rakkaxandeem rukkoo na tamaadaa mu wéy wa sajara te mu sujjóot xablu ci njëkk sëlmal wala lu tarki waaxidatin ak doonte ngir bàyyi benn kaabar dong la doonte benn allahu akbar képp nga fàtte itam nag boo xasee sëgg rukkoo door koo fàttaliku da ngay jàll ba noppi nag sujjóot xablu salaam ndax benn bu ci lañ koy ber muy sunu su feddali ko nga xam ne bu ci limaan bàyyee benn rek dana sujjóot xabla salaam bu fekkoon yow maa moom yaa ci bàyyi benn nag kon ilimaan dana ko gàddu moom wa mudrikul xiraati aji jot njàng ma yu kabiru dana kàbbar sabax juróom-ñaar su fekkee dangaa dikk fekk ilimaan kàbbar kàbbar yi ci ràkka bu njëkk bi ba tàmbalee jàng kon ngay tegale sa juróom-ñaari kàbbar rek war tàmbali déglu am njàngam wa mudrikul saaniyati aj jot ràkkab ñaareel ba yu kabiru day kàbbar xam san juróomi kàbbar yu bokkut ak kàbbar ba mu armale su ma sapxan topp juróom-ñaar nag bil xiyaami ci jóg ga soo ñëwoon ci julli korite mbaa tabaski fekk ràkk bu jëkk bi raw la nga fekk bu ñaareel ba boo ne allahu akbar armal da nga ciy tegaat juróom mu juróom benn ndax ràkk bu ñaareel bi nga fekk loolu lay am ciy kàbbar su ilimaan salmalee ba nga jóg nag boo jóg nga wax allahu akbar ba noppi tegaat ca nag yeneen juróom benn mu daal nekk juróom ñaar kam mudriki tashahudi ni ki aji jot taaya dangaa ñëw ci jullit korite mbaa tabaski fekk ilimaan ca rakkam ñaareel ba te rekkoona ba jàll nga xam ne yow ay sujjóot nga fekkee ki taaya rakk bi nga njëkk a taxaw mooy sa rakk bu njëkk juróom ñaari kàbbar nga cay kàbbar boo jóg da nga wax allah akbar bu noppi nag teg ci yeneen juróom benn mu juróom ñaar
loolu mu wax mat naa jàpp mooy boo ñëwee di julli ci jullit korite mbaa tabaski fekk ilimaan kàbbar ba tàmbalee jàng faatiha jaag saar wa kon na ngay daal di kàbbar li mu kàbbaree ba mat nga door a tàmbali déglu nag am njàngam lam leeralul nag mooy bu fekkoon ne dangaa fekke yenn kàbbar ya fekki woo ya ci des da ngay xam lim ba nga fekke bu ilimaan àggalee ab limam nga mottali nag lim booba door a tàmbalee déglu am njàngam nga bañ a fàtte ne yow maamoom nag boo fàttee kàbbar yépp mbaa yenn ca kàbbar ya ba mu xas raw ni ki xas nga rukkoo da nga koy bàyyi noonu rek ilimaan gàddu na ko ilimaan nag moom nee nañu su bàyyi woon rek benn kàbbar dong te xësru ko dañ koy digal bu sujjóot xabla salaam te bu boobaa it nag maamum yi daañu ànd ak moom ca sujjóot googee
war a faxal yëkkati na yedday yaari loxoom fil uulaa ci kàbbaru armal ba mooy bu njëkk ba faqat dong mboolem allah akbar yëpp nag bu njëkk ba rek lañu sopp nga yëkkati say loxo ci des moom da ngay kàbba rek saw làmmiñ te bañ a yëkkati sa loxo wanu di ba soppeef na ihyaa u laylatihi dundal guddeem ga guddik xiit la bëgg a wax maanaam bu ñu nee subal korite mbaa subal tabaski guddi googee nga fonk ko dundal ko ci loo man ci jaamu yàlla taamu nañ ko moo xam min salaatin wa zikrin wa takbirin wa tasbihin wa istigfaarin wa yaxsulu bi thulusi l axir min al leyli wal awla ixyaau kullihi maanaam bu dig boo ko defee ñetti xaaj boo dundalee xaaj ba ci mujj rek day mel dundal nga lépp lépp waaye nag nga dundal lépp lépp moom moo gën a baax addis ba nee na man ahya laylatal iidi wa laylatal nisfi min chaabaan lam yamut qalbuhu yawma tamutul quluub ku dundal guddik korite mbaa tabaski mbaa guddik nisfu chaabaan sa xol du dee bés ba xol yay dee nee na nag wa maanaa xadami mawti qalbihi xadamu taxayurihi xinda nazahi wa xinda suaalil malakayni wa fi lqiyaamati bal yakoonu mutmainan saabitan fi tilkal mawaadix bu ne xolam du dee bis ba xol yi dee mooy moom bu tolloo ci ñu nocc ruuxam ak bu tolloo ci malaaka yi di ko laaj ak bu taxawee bis pénc du gëlëm du jaaxle day def tekk dal ànd ak jàmm wa xuslun ak cangaay wa ba'da subuhi ak gannaaw suba
sopp nañu korite mbaa tabaski nga sangu cangaay lu mel ne nit ñi sangoo janaaba boo bàyyee nag ba sa digganteeg ñi nodd fajar mu des waxtu nga xam ne kon nodd gu jëkk gi daal waxtoom jot na boo sangoo mu baax waaye la gën nag mooy gannaaw boo jullee suba bala ngaa dem ca jullikaay ba nga sangu
wata tayubun aku gëttu wata zayun aku waaj wata zayunun korite mbaa tabaski sopp nañ nga xeeñoo xet gu neex waaje yére yi nga gën a rafetle doonte weexut ndax feeñal xewul yàlla sant ko ba indi xëyri musallin ak doonte ñeel kudul aji julli la doonte sax du kuñ digal julli ga muy sunna ci moom nekki gone wala jigéen ñi nekk seeni kër nga xam ñëwuñ ci jullikaay bi du tee bu dee bis korite mbaa tabaski ñu taamu ñu rafetal seen waajtaay laa yambaxi li ahadin tarku izhaari siinati wa tiibi fil ayaadi taqashufan maxal qudrati alayhi fa man tarakahu raghbatan anhu fa huwa mubtadi'un
bisub korite mbaa bisu tabaski lu kooka fonk di fonk di waajtaay ak xeeñoo lu neex sopp nañ rek mu fexe ba def ko sib nañ mu bëgg a naqaral boppam bëgg a teg boppam lu ko metti ba tax mu bañ a sol lu rafet bañ a xeeñ lu neex loolu daal bi daal la boo xam ne bu mata moytu la wa dhalika li anna allaha jaala dhalika al yawma yawma faraxin wa sururin wa zinatin lil muslimin yàlla daa def bis boobee moo xam korite moo xam tabaskee muy bisub mbégte di bisub waajtaay ci jullit ñi ba addis ba ne inna allaha yuhibbu an yara asara ni'amatihi ala abdi yàlla daal bëgg na ab jaamam bu ko defalee xéewal jaam ba sant yàlla wane xéewal ga bañ xam ne lii jeexiti xéewal la gu ko yàlla defal ba ci bis boobu sax nee nañ mënees na cee bàyyi gone yi ñu fo mënees na caa tëgg sax am dënd waaye nag nañ moytu rek góor ak jigéen jaxasoo ja wala yunkaru fi dalika al yawmi laibu sibyaani wa darbu dufi ndax faxat warada maanaam daa root mooy daa ñëw ca addis ba ba tey bu ñu nee gone jigéen yi sax bëgg nañ ñu waaj jigéen moom bu dee génn du sañ a waaj bu nekkee këram lañ wax bu dee génn du sañ a waaj du sañ a xeeñoo xet gu neex
wa masyun sopp nañ dox fii dahabihi ci demam nga booy dem ci julli korite ga mbaa tabaski ga sopp nañ nga doxaw sa tànk te bañ a war bañ a dugg oto mbaa dara boo dee ñibbisi na moom day fekk jaamu yàlla gi jeex na moom mën ngaa dugg boo dee ñibbisi waru joxoon akuk dellu fii tarixin ci aw yoon uxra waneen yoon wa nga awoon ba ngay julli ji korite mbaa tabaski sopp nañ boo wàññi ko aw ci weneen yoon wu bokk te woowa wa fitrun sopp nañ dog maanaam mos dara xablaxoo njëkk dem ci jullikaay ba fil fitri bu dee ci korite wa kawnuhu akuk nekkam xalaa tambarin ci tàndarma bu dee korité dañoo bëgg boo xëyee bala ngaa dem ci jullikaay ba nga mos dara mu wane ne wóoroo mel ne kon bañ la diggalee woor wooroon nga biñ la diggalee woor itam wori nga waaye bëgguñu nga xëy rek ci bisu korite bi jëm si jullikaay ba te mosoo dara mel ne ba nga daa woor ca fani koor ga dañoo taamu nag boo ko mën def tàndarma mooy la ngay lekk bala ngaa dem ci julli ga mu doon tàndarma te tóol boole ci bu fekkee amoo tàndarma nag mën ngaa góox ay góoxi ndox rek baax na wa taxiruhu sopp nañ ak yeexee moom dogga fi naxari ci tabaski bu dee tabaski dañoo bëgg boo xëyee moom bañ a lekk bañ a naan mel ne ku woor ba julli ji ba ñëw ba ñu rendi tabaski ma ñu andi nag ca res wa nga doge ca
ka amul tabaski it dañoo sopp rek bu xëyee bañ a lekk bañ a naan mel ne ku woor ndax sàmmoonteeg sunna soosu waaye nag bisu tabaski moom daa araama woor su àggee ci julli ji ba ñëw te mën a gis lu bokk ci ndawal tabaski gu mën a doge baax na bu ko gisul yaakaaru ko it mu daldi lekk leneen lu dagg koor ga
wa xuróojum sopp nañu génn bax da samsin ci gannaaw ab jant li ma ñeel koo xam ne xarubat jege na daaruhoo këram ga
bu sa kër soriwut fa ñuy jullee julli korite ga mbaa tabaski ga sopp nañu bala ngaa dem nga bàyyi ba jant bi fenk nga door di jóg jëm ci jullikaay ba su fekkee da ngaa sori nag ba aajo woon nga teel a jóg kon na ngay jóge ci waxtu woo xam ne rek bu ko yàlla dogalee da nga fekkee ji julli ga
wa takbiirun sopp nañ kàbbar fii ca génnam ga wa jëfarun ak biral bii ca kàbbar ga li suroox yi ba ca tàmbali ga fi salaatu ci julli ga ñoo bëgg booy génn sa néeg di julli ji korite mbaa tabaski rek ngay wax allahu akbar te di ko wax ca kaw boo àggee da julli wuñu da nga koy wax rek ba ilimaan ñëw ba ñuy tàmbali julli gi nga door a bàyyi kàbbar yi wa iqaahuha sopp nañ ak tàbbalam moom jullit xiit ga bil musalla ci jullikaay ba
dañoo sopp julli korite mbaa tabaski ñu wutal ko jullikaay boo xam ne dañuy dem ba ca àll ba mbaa boog bu dee ca biir dëkk ba itam muy jullikaayu boppam boo xam ne du bokk ak fa ñuy jullee julli farata ya dañuy wax ne julli korite mbaa tabaski ñu di ko jullee ci fa ñuy jullee farata ja moo xam jàkka ja moo xam jumaa ja bidhatun makruhatun bidaa la te lu ñu siba sib la illaa bi màkkata lu may nag bu dee ci màkka bu dee ca màkka moom dañuy taamu ñu defe ko ci jàkka ja ca kaaba ga de bu doon ca madina sax du tee rek ñu sib ñu jullee ko ci jàkka yonante ba nee nañu nañ dem ca àll ba mbaa ñu seet beneen jullikaay bu bokkut ak foofa la tax nag màkka moom ñu sopp ñu defe ko ci kaaba ga addis ba daa wax ne bis bu ne yàlla wàcc ci kaaba gi téeméer ñaar fukk ci ay yërmande yoo xam ne juróom benn fukk ya ñay wër ñoo koy féetewoo ñeen fukk ya ña cay julli ñaar fukk ya ñay xool nga xam ne kon xool ga kese dafa bari yërmande moom ñu sopp ñu defe ko ca jàkkay kaaba ga mooy la addis ba ne yan silu xalal bayti fii kulli yawmin mi atun wa ishruuna rahma sittuuna littaa'ifiin wa arbauna lil musalliin wa ishruuna lin naadiriina ilayh wa qiraa'atuhaa sopp nañ ak jàngam bika sabbix ci lu mel ne sabbix isma rabbika wa shamsi ak suuratu shams julli korite tabaski gannaaw faatiha saar wa jàng mu baax waaye rakk bu njëkk sopp nañ gannaaw faatiha sabbi isma rabbika wala hal ataaka hadithul ghashiya rakkab ñaareel nag suuratu shamsi wala suuratu layli
ba xutbataan ak ñaari xutba kal jumuhati yu mel ne yooyu jumaa sopp nañ korite mbaa tabaski ilimaan def yaari xutba xutba yi nag day mel ni boo jumaa ci balaa tàmbali bu njëkk bi day toog as ndiir bu jeexalee xutba bu njëkk ba ñu sopp mu toogaat as ndiir dooru jóg def xutba bu ñaareel bi wa ba'diyatuhuma ak seenub nekk ca gannaaw julli ga dañoo sopp ñaari xutba yi bu dee korite ba tabaski dañuy julli ba noppi door a xutba bu doon ajuma dañuy xutba ba noppi door a julli waaye fii moom julli ji mooy jiitu xutba wa ohidata ñaar in xuddimata ndem jiitaleef na leen su ilimaan xutba woon ci korite ba tabaski ba noppi door a julli kon su jullee ba noppi ñu ne ko baam waatal ñaari xutba yi ndax mu topp julli gi te bañ koy jiitu xam ne kon baam googee soppale doon baamu ko wastiftaaxuma ak seenug tàmbalee bi takk bii diñ ci kabar wa taxliluhuma ak seenug diggale bi ci kabar bilaa xaddin ci du limite sopp nañ ñaari xutba yi korite mbaa tabaski